la. dëgg la. n'est-ce pas. Mhm. bu campagne amee képp koo xamante ni candidat nga da ngay jël say cellule ak la nga mujjee daje liggéey yëpp ci du seen stratégie di def seen campagne pour les élections. Mhm. n'est-ce pas. Mhm. troisième facteur bi mooy bu ñu nee ne dara jot na troisième jour bi deux le lendemain muy le trois. Mm-hmm. te nit ñi defar nañ togg nañ la ñuy togg yëpp mu doon benn une masse générale. Mm-hmm. comme yi dugg léegi li ñu wax képp koo xamante ni sénégalais nga ñor la nga jug taxaw ñu def dem palais parce que nekkatul président de la république. Mm-hmm. ñi nga xamante ni am nañu possibilité. suñu yenn euh, on dirait des gens xamante ni genre sur l'Afrique de l'Ouest ñi nga xamante ni d'accord ci Macky Sall ñi ngi def ay plateau yu am solo ci Sénégal actuellement Sénégal rek la ñuy waxtaane ci àdduna bi. Mm. actuellement bu may bu toog rek may mhm. léegi nag li pro xool mooy lan ñëpp xam nañ actuellement bu gàtt moo ko fay ji mhm. ak ñemeka moo lay permettre mu génn mu bëgg mu bañ Sénégal mhm. ñu ñoo ko moomu ñëpp xam nañu objectif Sénégal mooy ñëpp am jàmm te lay sax ñu ñuy toog di calculer ni ay élection nangam ak nangam suñuy la li ñuy wax le Sénégal nous appartient suñu Sénégal la ñun ñooy xool lu ñu neexee ñu doxalee ko mais actuellement mu laa bu nekkee boo yi dañu bëgg a génne di dispersé wu bu bëgg a génne ñu dispersé wu hmm. duñu parce que il est dans sa il est il est dans sa légitimité président actuellement lu ma neexee def incha allah trois jours maanaam maasu Sénégal bu ñu jógee taxaw dañ koo mën a téye. Mm. est-ce que sax moom ñi nga fonde dañu fonde ànd ak ñoom mu xëy na amaana bi ñu ànd ak moom. ñoom ñoo la gën a sonn. ñoom ñoo la gën a sonn ñoo gën a suur Macky Sall. c'est pas ndax comprendre nga li may wax. bu baax bu baax waa ñi ngi lay dégg koy bu baax kay. Mhm. yaa ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg. gars yi foogoon ni daal mën naa ko dolli ci liñ doon wax. macha allah macha allah rafet na lool am na solo macha allah. jaajëf merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Euh, salaamaaleykum. waaye salaamaaleykum. salaamaaleykum waaw moom ñu ngi lay ziar. waaw delloo ziar lépp jàmm. waaw bisimilah yaa ngi ci biir. Mhm. waaw participer woon rek am na benn waay bu dugg léegi doon jox benn stratégie booy nan la ñu war a def. Mhm. affaire bi du du moom laa doon wax léegi ci benn panel euh, fii en France nii bu ma bokk man bi du question de benn benn nit di dem di regroupé wu ci benn milieu policiers dañ la fay xaar parce que policiers yi tamit dofuñu dañ leen di jox information dañuy suivre groupe WhatsApp bi di suivre WhatsApp message bi ñuy véhiculé ñu teel préparé wu jiitu leen sur le terrain wala ñu toog à côté di leen xaar booy bu njëkk a fal jàpp la loolu du stratégie nañ manifestation noonu lañ koy defee dofuñu en deux mille vingt et un kenn day mm-hmm. jaaxle. Mm-hmm. booy dañoo repousser policiers yi ba caserne. loolu Sénégal yëpp témoigné nañ ko. Mm-hmm. mais pourquoi mënuñu utiliser stratégie boobu. lan moo ñu ko empêché y a rien qui nous empêche de le faire. waaw peut être peut être bi moo des daal lu Sénégalais bañ a dégg. détermination bi moo des. détermination bu xoolal dama nekkoon ci benn groupe léegi léegi mu am mu am benn femme bu bind ne est ce que. Akhenaton nekkul en avance si ñun lii yëpp waxoon nañu ko ma ne ko soxna si mu ne ah ma ne ko non li ma des na Mollah wax na ko fi man maa ngi ay archive Mollah li ngay wax nii Akhenaton wax Mollah wax na ko fi ñu bëri wax nañ ko mais malheureusement doo leen leen déglu da ay nitu fitna la dañuy focus focus mais focus bi Ousmane Sonko dafa njabootoon façon nit bu nekk façon bu nekk mu ngi ànd ak moom dafa bëri armée mais ku nekk da koy bàyyi xeexam am na benn arme boo xam ne boo ko utilisé ba sonn te te te. te te te réussir pour atteindre sa yow sa ennemi mais. Mm-hmm. sans stratégie moo la ñaan la def laaj ne wàcc leen ci terrain bi Ousmane Sonko ay ay ay message doo leen ko décrypter ñaata loolu ñaata yoon na leen wax fii ni carrément avec Macky Sall il faut une un rapport de force du ay wax ay ay live ay yooyu moo koy def loolu nañ ko bàyyi ñi nekk ci kaaw bi mais ñi nekk sur le terrain dañu xeex avec avec des armes Macky Sall loolu la soxla instant yi nii nii nii xoolal les cibles potentielles voilà. Hmm. pour ñu réa ñu réagir waxuma seen gouvernement bi kese réagir de armée mooy jóg. Hmm. gis nga am na ku fi tudd léegi port bi. waay. mobile bu ànd bu ko gars yi laalee laal bi laal ñett yooyu kese laa la wax nii ah. dégg ñu la bind leen division ko téye. si si détermination détermination bi moom manqué rappelé naa leen loo xam ni yàgg nañ koo xeex ren amul lan moo waral loolu. mooy cocktail molotov yi kenn yoratu ko kenn téyatu ko te foo xam ne fi amu fa rey ñu fa ay nit mais pourquoi gaa yi commencé fàggu wuñ cocktail molotov yi ñun ñoo ñoo ñoo ko doon financé ñun ñii ñoo doon am li seen xaalis di jox booy yi. booy ci bëri ñi jàpp nañ leen ñi nangam xeex boobu xeexu Sonko la mais léegi fu mu nekk nii xanaa c'est c'est le peuple sénégalais naka ay financé kaay cocktail molotov yi voilà. léegi xew Sénégal léegi am na leneen moo la. Mhm. booy bu ñu manqué financement li leen di financé mu ngi fi déjà. waaw léegi de moom mi ngi fi vraiment. mu ngi fi parce que parti fi nekk yëpp doon woote opposition mais rien que parce que ñaata lañ def collection ñaata lañ jëlee si ay brasserie. ñëpp dañoo participer man sama dërëm muy fa peut-être yow sa dërëm muy fa ñaar dërëmu keneen muy fa léegi nga jël xaalis boobu nag motivé booy ñu wàcc sur le terrain. waaw ah, ah, waaw ah, parce que non dama ne. da nga da nga doon woote cotisation. non dañ doon woote cotisation pour ay élection cotisation yooyu dagale nañ ko élection amul nga woote xeex kay financé xeex bi. <laughs> da nga ne woon nañ la financé pour parti pour pour ngeen pour ngeen préparer élection dajale ay millions yi millions yi millions. élection amul nga ne gars yi kaay leen xeex financé xeex bi mais bul jël xaalis ba denc naan kaay leen xeex kenn du a loxo nen. Uh-huh. buñ leen joxee rek dinañ motivé wu buñ leen joxee maani bi booy di dugul di jëndi cocktail yi di jëndi cocktail yi di mun a am paas di mun a kii di mun a dem di ñëw di yéeg di wàcc yor benn luñ mun a jëndee benn mburu waaw dinañ jox gars yi tamit c'est de l'argent xeex xaalis la de. loolu laa amoon lu may contribuer ma bañ a ma bàyyi yeneen gars yi ñu dugg ba ñu gudd. jaajëf jaajëf one love thanks. jaajëf one love. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo. allo maaleykum salaam. waaw lu ma yàgg man du ma yàgg ci kii bi. Hmm. man li may wax mooy xam nga lan la ñuy def. Hmm. xam nga lan la ñuy def. Hmm. Sénégalais yi Sénégalais yi li muy def yomb na. suba jàmm. suba la ñu wax le sept. Hmm. le huit le neuf ba le dix li amoon ci événement naar yi deux mille quatre-vingt-huit hmm. nga xam ne kaar yi bu ci nekk xale yu góor yi dañuy ci biir kaar bi wàcc nit ñi nga topp nga ji nga topp mbooloo mi nanu buntu kër yi nan taf ay trapo bind ci Sénégal hmm. lii bu ko defee incha allah li bëgg dinañ ko am nanu paralysé dëkk bi bu dara laa laaru mën naa ko wax bokk ci bokk ci kii bi te bu ñu ma ko waxee tamit yàlla na ko ñëpp dégg. amiin amiin laa gis sax ni kii quoi nii kii. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup am na solo euh, dañuy dañuy jëlaat ñeneen appel yi moom xam naa ni xaw na bari mais dinañ jël le maximum rek dinañ jël le maximum euh, fii ak affaire bi di arrêté moom dañuy dañuy def lii rek la parole au au sénégalais salaamaaleykum. Ah, allo woy salaamaaleykum yooyu ñu ngi ziar yaa ngi ci biir ñu ngi lay déglu delloo ziar wala jaajëf jaajëf waaw en fait sama sama participation moom andi am na personne bi jàll ki doon wax waxu Massalikul Jinaan heure julli yeeg yooyu noonu euh, je pense que côté boobu noonu dafa il s'est il s'est même contredit te yow da ko si xaw jàppale parce que comme que ça se passe parce que mu ngi naan pour wane ni dañu war a dajee tel tel tel lieu mais pourtant mu ngi naan vendredi la ñu war a dajee Massalikul Jinaan nga xam ne ñëpp dañ fekk dañuy julleendoo ñëpp xam ne ni point stratégique la gendarme ñooñu ko gën a plusieurs fois xam ne yow sax dem nga ba entre guillemets laay wax découragé wu en se disant que euh, mais ana Sénégalais yi quoi est-ce que xeex nañ après yeneen live danañ ñëw sax ne pourtant booy yi xeex nañ quoi mais man instant yi nii sama état d'esprit nekkul pour gars yi wàcc dem xeex ci tali bi pourquoi parce que xeex boobu noonu ba léegi si guñ ko euh, action yi ñu bëgg egg sax yi nga xamante ni booy yi dañ fa egg sax duñ fa egg te problème bi mooy à chaque fois y a des morts mooy dañu leen jàpp dugal leen ci kaso bi dóor leen dóor yu metti gaañ leen ñu ñooy obligé waat di cotiser di def ay ay ay ay euh, jackpot xaw ma luñ koy waxatee noonu pour pouvoir aider booy yi tout depuis deux mille vingt et booy yi ci kaso xam nga pour ma booy bu ñu leen yërëmul tamit duñ leen wax ñu génn ci tali bi instant yi nii quoi pour man c'est c'est instant yi nii on en vraiment on en réelle crise xam nga bu boo ñu génnee de défense et de sécurité bi leen ko baal c' est ça le problème problème bi foofu la te benn waajur bëggatul sa doom dee boo ñu dee dee à Sédhiou Ziguinchor Dakar Thiès un peu partout ci région yi ba léegi amaguñ ci dara lu leer te yow jooy ko fi jooyaat ko fi kaas nga ko kaasaat ko fi tout ça mu métti la trop dem nga ba am ay renseignements ci biir prison yi autopsie bu ñu ko deful sax da lay métti gravement te te demande comment ça se fait koo xamante ni dee na quelques jours pour parler de xale bu dee et tout et ça yooyu yëpp daf lay métti pour man il faut que ñu ñu ñu jël recul te jël recul bi il faut pas ñu jàpp affaire u ragal parce que recul comme pas la bokk tey yonente yu bëri bu ñu leen demee persécuté dañoo gàddaay dem seen pouvoir jëlaat doole pour ñëwaat. nit yow rek laa ci wax les autres activistes mais yow laa ciy wax hormis yow ci politicien yaa Ousmane Sonko et quoi qu'on dise Ousmane Sonko il a été mis à l'écart nekkatul sur le terrain pour son combat actuel am na loo xamante ni prévoiroon na ko boo xam ne gis nga tey bu fekkoon euh, processus bi muy continuer da gis ne vidéo yi Ousmane Sonko doon def day am solo mais instant yi vidéo yi am solo parce que boo jaaree nii gars yi nee jaar te loolu je pense nañ ko waxoon ko ko def na benn vidéo mu dal mu defaat beneen vidéo mu dal gars yi annulé lépp comme ça c'est fait quoi tu vois nekkatul ci processus nekk na à genoux tey kan mooy jiite lii nii yëpp quoi kan kan boobu léegi ñu naan non booy génn loolu la ñuy wax ku nekk mu ngi naan sa morom na nga génn yow génnal gis lu ma la fa maa ngi la fay gis dem naa fa gisu ma la fa mais kon kañ la ñuy daje ba génn ba def lu ñu bés bu ñu demee ba daje tamit lan la ñu war a def lan lan la ñu war a def dañu war def marche pacifique loolu moo nekk objectif bi mais marche pacifique ñëpp xam nañ ni vu le contexte actuel mënatu la nekk même bu ñu daje sol ay tout blanc yor drapeau Sénégal on va tirer dessus comment nga. Mhm. ñu ngi déglu. bu sax sonn donc ah am na ñoo xam ne dañuy dañuy commenté naan non nañ waaw